dëgg yaakaar na nga sojoon mais comme tane nga alhamdulilah. instant bi ça va maa ngi tane bu baax a baax. yàlla na yàlla yombal. mais mu jaara. wax dëgg yàlla tey man man man ma bëgg moon sax jël téléphone bi. moi je suis à l'étranger. et eh, mon pays le Sénégal m'a tout donné. j'ai appris quand il fallait le faire. j'ai travaillé au Sénégal quand il fallait faire. j'ai cotisé au Sénégal quand il fallait le faire. je suis parti à l'étranger toujours taxawal taxawal Sénégal. dans des il y a milliers yoo xam ni du du boppam il y a des milliers yoo xam eh, c'est y a que des personnalités je représente le Sénégal je pouvais dire que je suis de la France mm-hmm. mais je dis je suis sénégalais fier d'être sénégalais tu parles au nom du pays parce que c'est un pays paisible et tout ce qu'il y avait et tout ce qu'on sait kenn du si dellusiwaat mm-hmm. Sénégal a toujours été un exemple je disais aux Français et aux Européens ñun duñ seen morom on a voté avant que maa ngi jaxase wala mooy français on a voté c'est vrai qu'on a voté avant l'Espagne que 74 la am indépendance mm-hmm. la France les femmes euh, euh, sénégalaises ont voté avant les femmes euh, européennes bi jigéenu Sénégal di voté boobu jigéenu France boobu jigéenu Europe amagul loi d'accord gul pour ñu voter donc c'est un grand pays aujourd'hui su ñu demee le pré la première chose qu'il faut faire c'est lu tax may wax mooy l'histoire de Bara Dolly je veux pas personnaliser les mais ce gars-là ñun ñun Modou Modou yi duñu moromam. Hmm. ñun duñu moromam di ci lépp. parce que ñun c'est vrai que ku ñun mën lu wax taxaw même bu eh, kenn amul kenn demul personne ne veut di neex di neex ñun ñoo defar suñu bopp moom dafa ñëw fekk yëpp bu baax mu ñëw toog di wax ba yax nit ñi sëñ Tuubaa ma fal la la mais sëñ Tuubaa falu ko sëñ Tuubaa naka fale nit il faut qu'on soit sérieux sëñ Tuubaa du fal ku mel ne Cheikh Bara Dolly il faut qu'on soit sérieux et qu'ils arrêtent di attaquer les moodu yi nga xam ne tey suñu joxewul tabaski tabaski ay cas soci problèmes sociaux yi amee euh, euh, ça se reflète dans la rue donc euh, diaspora bu a am je te donne benn anecdote moi j'ai parlé avec quelqu'un Espagne Espagne est aujourd'hui ce qu'il à cause de son kii les les Espagnols étaient les plus grands immigrants ñoo ngi woon Suisse France partout en un après bi ñu amee seen indépendance en 74 ils sont tous revenus pour faire leur pays su fekkoon conditions sociales yi socio-économique yi dox na Sénégal on a de vrais patriotes yoo xam ne dañuy gérer le pays comme il le faut diaspora bi bu ñu aujourd'hui dans vingt ans beneen dëkk la ñuy wax parce que Sénégal c'est un pays paisible c'était un pays paisible maintenant on sait tout ce qui s'est passé on va pas y revenir mais tu peux pas foo di minimiser ni ñi di parler de Sëñ Touba de Sëñ Touba Sëñ Touba euh, au mieux man maa la koy jëkk a gis fu ñu dajee fële parce man damay julli ñaanal Sëñ man leer na ma ni moom du julli ñaanal Sëñ pourquoi parce que xalaat na ni sëñ Tuubaa àjjanam taxaw na ba pare te loolu yàlla bindugul ko kenn man damay julli barka alxuraan al karim barke Coran bi di ñaanal sëñ Tuubaa Seydi Hadji Malick parce que xam naa li ñuy teg seen je suis fi instant bi xol laay wootee waxee parce que ñoom li ñuy teg seen der dafa bëri te personne ne pense à eux il faut dès qu'on s'arrête ñu demati beneen yoon on parle de Touba kenn du fa voté titre foncé et tout ça mais pourquoi pas Tivaouane pourquoi pas Ndar xam ni mooy première capitale pourquoi pas Thiès pourquoi donc il faut que ñu am benn façon bu ñu xam ni politiciens di dañuy xool les autres pour wax moi j'étais pas d'accord dans le bi ñuy wax naan un budget pour la modernisation des familles religieuses ñoo xam ni gars yi yi lu ñu am jox leen ngay bit voté waat budget di leen jox pour que ñu gën a boo demee je te dis madame je veux pas être long boo demoon tey France wala Canada doomu Mbàkke Mbàkke bu ñëwee en tant que étudiant appartement lay loué si biir dëkk bi les autres sénégalais yi nga xam si ñoo leen dàq jàng foofu dañuy ñëw di débrouiller pour fanaan am na ñoo xam ne si gaar yi di la débrouiller pour mën a fanaan pour mën a tëdd pour mën a lekk injustice boobu yëpp gaa yi koy dund ni pat pour respect à sëñ muy wax noonu hmm? yow nga jóg ci heure boo jógee si télé bi yow yaa jikk jaar si diggante bi hmm? Pape nga njaañ di ko laaj ni ko naka ngay néew si dëkk boo xam di sol ay daalu cinq cent mille mu ni sëñ Touba ma ko ji eh, ay veeru un million mu ni sëñ Touba ji mais il faut a ce gars arrêtez-le Et l'histoire des titres fonciers, il faut le voir. Il ne faut pas nit ñi di ragal. on en 2023 sont réfléchis les gens alxuraan karim ko jàng man mi sama maam dañ koy jàngal cada chaque année te def lu dul kaamil hmm? donc il faut qu'on s'arrête il faut arrêter ces gens là il faut que dëkk bi buñ koy yor ñu yor ko ak ñëpp yam tout le monde yam ñëpp yam ñu traiter les gens de façon extra maintenant na man su ma jëlee sama xaalis dem seeti seeti Serigne Touba jox ko ko xaalis daf ma neex mais keneen ki nga xam ne neexoo ko tu peux pas l'imposer ñu jël pare curage bi le ministre bu ñu waxee ñu ni nawetaan bi jog na nawet bi jóg na premièrement Touba laay dem xool ndax defar nañu yëpp mais pourquoi pas nga jàll eh, caaro yi pourquoi pas caaro yi pourquoi pas Thiès nga def plan pour tout le monde mais exceptionnellement le ministre se déplace pour que ñu def curage yu Touba ñu def yëpp ngeen ni eh, kii titre foncier la mais titre foncier man du ma jël impôt Sénégal yëpp di la ko jox toog bu fekkee titre foncier ngeen yor defar leen seen bopp lépp Ila Touba ngi ni di def des milliards et des milliards de tous les Sénégalais faillite ñetti ñetti oto moo fay jaar par jour on est obligé de payer les Chinois beaucoup de choses on la ñun on la tue kenn waxul kenn deful dara pour respect à Serigne Touba bi ma lay wax ni que ñun ñëpp moom ni ni ñaanal moom ñun gëm mais pas Serigne Bala Doole il faut qu'il s'arrête ce gars il peut même pas lire une phrase te langue bi ñu bëgg ko ñu bañ ko ma je ne ku ne mën na d'accord ñu def ko wolof wala ñu def ko beneen langue mais moom warul dem ay commission de loi des loolu en ambassade bu sérieux dina ko def mënu sax tubaab il dit ce qu'il veut et tout le monde ñëw ni parti ndax sëñ Tuubaa mais sëñ Tuubaa d'accordul ci ay fenn et lii moom li muy dëgg noonu lu muy dund noonu c'est de l'utopie moom mënul def dara Sénégal lu baax Modou bi nga xam day doxantu dem Western Union fu mën a doon yónnee cinquante mille cent mille pour sa famille moo ko ëpp fu pour le Sénégal il faut qu'il s'arrête il faut l'arrêter merci beaucoup ku euh, baax ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, kàddu yi am na solo 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 Serigne Ndiaye maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, Mansour Gueye Tafa Dieng maa ngi leen di jëfal bu baax a baax kon nu ma ko waxee sànq tey nag ponk yi ñuy waxtaanee bokk na ci Serigne Mountakha Mbacké jamono juñ toll nii daal muy rek ne. nañu daal di dakkal bépp yëngu-yëngum politique bu nga xamante ni mi ngi daal di am foofu la ci diwaanu Touba beneenu ponk bi bokk ci euh, Serigne Moustapha Sy euh, kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko ginnaaw cérémonie bi mu doon amal ca naka noonu yi tamit mu wax ci euh, politique bi ak ba muy doxee waaye tamit jël ay kàddu yu seede jégleel ko Ousmane Sonko daal di jël kàddu yoo xamante ni daanaka suñu ko daal di càmbaree rek dafay avertir ak yi nga xamante ni mooy président Macky Sall beneenu mbir mi bokk ci communiqué bi nga xamante ni waa PASTEF def nañu ko ne rek ñii di seen ay par militant euh, partisan seen partisan nañu maytu euh, fausse information yi nga xamante ni ñu ngi koy daal di jàllale ci leaderu PASTEF li di Ousmane Sonko ci naka noonu yi tamit ñuy xam ne ni ni bépp information bu soxal Ousmane Sonko ñoom ñi leen di euh, parti PASTEF dinañ daal di def benn communiqué boo xamante ni ñoom ñooy joxe xibaar yi waaye ca yoon naka noonu yi tamit daal dinañuy weddi bépp xibaar boo xamante ni lu ñeel wàllum médiation manaam dañ ne woon euh, euh, euh, médiation dafa am ci diggante président Macky Sall ak ki nga xamante ni mooy doomu Pastef bi di Ousmane Sonko boobulee xibaar daat nañu koy weddi mais également lu ñeel li nga xamante ni mooy délégation bu ñu ne président Macky Sall daka fa yónnee loolee tamit waa Pastef communiqué bi nga xamante ni amal nañu ko daat nañu koy weddi woote leen ci numéro yooyu 88 628 73 13 08 99 25 24 02 wala ci 77 914 64 93 bu fekkee am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko bu fekkee kenn nekk ci ligne bi ah, ñu daal di jaajëfal ñi nga xamante ni jamono ji ah, ñi ngi ah, teewlu ñi nga li nga xamante ni mooy boobu lay live di leen fàttali ngeen di abonné bës cloche de notification tamit di aimer et li nga xamante ni mooy live bi su ko defee ni ci yi nga xamante ni duñu jot notification mën ko daal di jot Matar Thiandoum maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax tey ponk yi nga xamante ni moom la ñuy daal di waxtaane bokk na ci Serigne Mountakha Mbacké mi nga xamante ni jàpp na ni daal nañu daal di rek dakkal bépp yëngu-yëngu politique bi nga xamante ni dafay am ci foofule ci diwaanu euh, Touba waaye tamit Serigne Moustapha euh, Sy yëkkati na ay kàddu ci li nga xamante ni mooy tolluwaayu réew mi beneen ponk bi communiqué bi nga xamante ni waa Pastef euh, def nañu ko bu fekkee am na mbokk bi ne ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Oscar Siara maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. soxna jaara ñu ngi lay delloo jaajëfal di la nuyu di siyaare ñëpp mm-hmm. <laughs> di nuyu euh, internet yi 2A ñoom ñoo ñëw si di la fay bu baax a baax mm-hmm. saa tubaab sat bu ñëpp rek voilà mm-hmm. ñu ngi lay euh, fay bi moo sax xalaat parce que li si di Lamine doon wax rek nee kastiloor boo teg muy bax il fallait nga tijji ko soo ko mënul tijji tamit na nga ko wetaat rek. Mhm, dëgg la pour coolool yi di génn. sinon bu mhm. coolool yi génnul rek mën na éclater à tout ma c'est vrai de. comme dañ may benn opportunité boo xam ne dañu wax suñu xalaat. Mhm, ndax nit lu mu mer mer mer mer soo ko woowee toog déglu ko rek wax bi muy wax rek daf koy décharger quoi. donc loolu ci am solo. loolu mooy émission seen kàddu nag voilà di wax internet rek ñu gën a aimer commenter donc yokk abonné yi quoi li may wax rek man képp koo xam ne sa téléphone am naa ci accès moom li may njëkk def mooy laal YouTube bi rek. ndeysaan yow yow ci nga bokk yow ci biir famille bi nga bokk. man man ci noonu laay noonu laay noonu laay doxee quoi. am ngi la mu ngi noonu donc li may fu may commencer mooy. Hmm. communiqué bi nga xam ne suñu parti def nañ ko. man a tout moment panel bi nga xam ne maa ko jiite sax toujours lool la leen di wax dama leen di wax ne leen ku ci dugal dara bu ma ko supprimer rek xamal ni dañ cee amul dafa dafa nekk loo xam te ne nii euh, fekk information la mm-hmm. parce que yooyu baaxul quoi daf ñuy divertir mm-hmm. moo tax toujours dañuy supprimer rek moo tax lool noonu communiqué bi dafa ñëw ci dafa ñëw à temps quoi parce que à chaque fois da ngay ñu naan démb trois heures du matin am ñoo xam ne dañ lay jox ay dañ lay jox information ba jox la ay seconde naan lan trois heures du matin bi mu nangam ba jox la seconde yi mu teg naan lan si la délégation nangam dem magi nangam ñi kii wala kii ak kii ak kii alors que lépp day nekk loo xamante ne nii dara amu ci quoi te yooyu noonu baaxu ci quoi parce que bu fekkee da nga bokk ci coalition nga dégg ñuy joxe ay fausse information naan ñi dem na foofu alors que coalition bi dem ñu foog ni toujours yow da ngay def affaire de baareegoo quoi ci suuf. Mhm. te Ousmane Sonko du ko du koy baareegoo loolu Macky Sall moo la ko gën a xam. Mhm. Ousmane Sonko du koy baareegoo moom baareegoowul tey baareegoowul ëllëg Macky Sall bu fekkee dafa bëgg a def médiation entre moom ak Ousmane Sonko public publiquement lay doon même buñ ko def RTS parce que Ousmane Sonko yooyu doxu ci parce que doo yàq suñu réew rey suñuy nit ba pare bëgg di di def benn euh, baara yogoo boo xam ne dañ lay jégal wala leneen loo xam ne mooy loolu donc yooyu moom yaakaar naa ne communiqué bi donc leeral na ci lu bëree bëree bëree bëri mm-hmm. beneen bi mooy euh, affaire wu euh, sëñ Moustapha bi njiitu Moustarchidine di wala Moustarchidaty daat mm-hmm. moom wax dëgg yàlla position ku ne yàgg na koo gis ku ne yàgg na koo xam ci man wax dëgg yàlla dama leen naw lool ndax sama sonn ci ñoom la bokk <laughs> voilà donc <laughs> donc donc ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne ne ñoo am principe te liñ nekk ñoom boo leen joxee mot de ordre lu mu ci mënti doon donc événement yi fi xewoon euh, ci 16 euh, février yooyu yëpp yaakaar naa fi lañ fekk na mu demee woon gis nañ ko takk der yi yor seen ay arme te teewul Moussa dine bañ leen joxee feu vert dañoo dem Hmm. voilà donc tey jii tamit nañ ci xaaraat loolu bu fekkee Macky Sall dafa taxaw fii bëgg a rey askan wi wala mu taxaw ci benn intérêt personnel am boo xamante ne nii troisième mandat bu mu yor wala troisième candidature bëgg cee rey askan wi boobaa ñu ñëpp daañu wàcc jàmmaarloo ak ñoom. Hmm. li may waxaat rek woo suñu suñu suñu police suñu gendarmerie ak suñu armée maa ngi leen di woo encore une fois ñu nekk benn armée républicaine. Hmm. jamono yi nga xamante ne nii Ibrahima Boubacar Keïta nekkoon fii ci Mali. mu dem ba euh, ñuy def manifestation sa vendredi dem ba dox nag jubali këram comme moom daawul nekk xole bi mu joxee arme bi na leen comme police tële na gendarmerie tële na tiire leen ci seen kaw ndax protège ñoom seen arme bi soxam ñoom ñoo ne ndax ñun dañuy tiire ci askanu lëmb ci ci bëgg-bëgg kenn nit muy yow kese est-ce que jotul tamit yow nga bàyyi. ndeysaan. Mhm. loolu la armée loolu loolu mooy armée républicaine imaginel yow nga rey ay téeméeri bakkan si benn bakken kese kese kese kese donc loolu toujours ñoom armée sax dañuy wax ne maanaam rey benn bakken te sauver yeneen i bakken moom moo leen di gënal mm-hmm. donc mm-hmm. armée républicaine noonu lay doxee ko waaye armée boo xam ne ñi si kaw dañ leen a corop dañ leen a ay corruption ñii ñu dagal leen ay un hectare ci littoral bi ñii ñu jox leen ci euh, banna de flawo bu géejawaay bi ñii ñu jox leen ay milliards ñii ñu jox leen ay ay ay R plus six yooyu amul sens alalu mm-hmm. àdduna militaire dëgg dëgg décoration biñ koy tappal ci poitrine am moom moo ko gënal ay milliards loolu mooy armée républicaine dëgg mm-hmm. li may wax nag mooy message boo xam te ne dama koy jàllale pour Macky Sall xam nga le euh, mars deux mille vingt et un fii lañ ko jekke woon ba pouvoir bi nekk ci ci biti sëñ Mountakha jàppaat ko foraat ko dugal ko ci biir te diggante boobu foofu ak léegi deux ans la ñaari at te ñaari at yi dem na fi préparé wu trois mille policiers trois mille gendarmerie nga jënd say armes islaahi nañ ba jënd ba jënd sa ay doron pour ñuy sànni ay gaz lacrymogène ci manifestant donc état bu xamante ne préparé ne deux ans ñëw booy yu noq la ci vingt euh, euh, kii quarante huit <laughs> quarante huit lañ ko noq mu woo armée woo ay nervi ba pare rey donc bu fekkente nit ko am jom dëgg la nga waaj deux ñaari at yàlla ñu noq la ci quarante huit heures war ngaa mën a xoolaat sa bopp jéem taxaw jàkkaarloog askan wi na leen wax dëgg yàlla tere naa yéen yéen a ma man ñun xeexuñu loolu jàmmi Sénégal la ñuy xeexu ñu la neen xeexuñu pour Ousmane Sonko fal de Macky bu ñu ko dàqoontee jëlee réew mi est-ce que Ousmane Sonko day def direct palais toog mënta na jamais mm-hmm. c'est pas pour ça nekkul ne loolu la ñuy xeex li ñuy xeex muy pour jëlaat suñu réew mu bàyyi ñun ñun population bi nga xam te ne jeunesse bu mature la ñu am te moom lañu ñun ñu falal kii ñu neex ñu falal ko suñu bopp mu toog suñu réew ñu xam ne kii ñun ñoo ko falal suñu bopp ëllëg leneen lu ci am ñun ñoo koy ñoo koy ñoo koy consommé. Mm-hmm, mm-hmm. kon moom nañu bàyyi ngir yàlla ni Amadou Sall amee droit def choix am ñun ñoo lañu amee def droit def suñu choix nañu bàyyi ñu fal képp ko xamante ne ni neex nañu fi may daanale rek mooy li nga xamante ne ni sëñ Mountakha euh, doon na ko wax yaakaar naa su ma juumul ñuy wax wàllum politique ñu wàññi ko Touba wala li ko gën a naqare loolu ca la bokk lool loolu waa Pastef bokkuñu si ndax waa Pastef ñoom rek ñoom ñoom rek moo nekk benn parti moo xamante ne dafa déplace dem ba Mbàkke def ko siège siège u Pastef amul biir Touba nga wër Touba ba mu daj Pastef amu fa siège parce que dañ ne woon comme Touba gii nii sëñ Mountakha bëgg fu mu politique kon ñun duñ fi def suñu siège jël suñu siège dem def ko Mbàkke kon yaakaar naa loolu ñun ñun bokkuñu si beneen bi ci topp mooy na duñ fa mën a voté ak nangam ay bureau de vote yi nekk foofu noonu loolu noonu xalaatu état bi la parce que xam na ni Touba. maanaam euh, carte graphique électorale dafa am solo ci ci dafa am solo ci wàllum élection ba nga xam te ne te moom comme moom mënu koo gañe parce que ñaari élection yëpp dañ leen faa moom dañuy def le tout ba sëñ Mountakha def na euh, Touba lay fii kenn du fi mën a voté léegi daal ñi nga xam te ne ni ñoom ay électoral la ñu nekk Touba ñoom dañuy mujjee muñ quoi loolu noonu du am tey du am ëllëg sëñ bi loolu la bëgg loolu la Macky Sall la bëgg wax sëñ bi sëñ bi nag moom comme Macky Sall dafaa dem wax ko commission bi nga xamante ne dafa yore wàllum élection wala ñeneen ñi nga xamante ne parti lañ bokk dinañ fa dem jox ko yeneen conseil wala jox ko yeneen xalaat pour mu exécuter lool maanaam nañ déplacer bureau de vote yi dem yóbbu ko Mbàkke ñoom ñu dem voté ci wala campagne électorale bi nga xam ne moom lañ doon déroulé biir Touba ñu ñu bañ ko faa defat ñu annulé complètement képp jour élection jotee ñoom ñu samp si nekk dem teñ donc foofu lañ doon daanee la quoi ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax 88 628 73 13 08 99 25 24 02 wala ci 77 914 64 93 ngeen daal di mën a bokk ci li nga xamante ni moom la ñuy waxtaane comme ni ma ko waxee woon euh, sànq ñuy waxtaane bokk na ci Serigne Mountakha Mbacké li nga xamante ni jamono ji ma ngay daal di rek euh, ne nañu dakkal bépp yëngu-yëngu boo xamante ni dafa aju ci wàllum politique ñu daal di koy arrêté foofule ca diwaanu Touba beneen ponk bi bokk ci Serigne Moustapha Sy ginnaaw cérémonie bi nga xamante ni mi ngi ko doon amal yëkkati na ay kàddu ci tolluwaay réew mi yëkkati na ci ay kàddu yi tamit ci li doxu Pastef bi di Ousmane Sonko ak uh, rek nag kóllëre uh, bi nga xamante ni sekk nañu ko. Euh, tey nag di avertir kii di président euh, Macky Sall euh, beneen ponk bi nga xamante ni dinañ ko daal di waxtaane yi tamit bokk na ci communiqué bi nga xamante ni waa Pastef dat nañu koy amal ngir rek di maytuloo ñi nga xamante ni ñooy seen ay militants partisans seen partisans ngir rek ñu maytu bépp fausse information bi nga xamante ni ñu ngi koy daal di jàllale ci seen leader u Pastef bi seen leader bi di Ousmane Sonko ne rek boobaak léegi gis nañu ay xibaar yi nga xamante ni journaux yu bëri ñu ngi koy fësal ñu ne nag loolee yooyee xibaar wéerul ci mel ni euh, barricade bi nga xamante ni defoon nañu ko kër Ousmane Sonko euh, te ñenn ci journaux yi xëy ne euh, dindi nañu ko ñu ne loolee nag dara amu ci waaye tamit lu ñeel médiation bi nga xamante ni ñu ngi koy wax jamono ju ñu toll nii ci diggante président Macky Sall ak Ousmane Sonko loolee tamit communiqué ko Pastef bi daal na koy ju ñu toll nii nag ñu ngi xam ne ni bépp xibaar boo xamante ni dafa aju ci seen leader boobu léegi Ousmane Sonko ñii di waa Pastef dinañ ci amal ab communiqué ngir rek joxe xibaar yu wéer yi mbokk yi li mooy ponk yi nga xamante moom lañuy